713 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum te bu ñu nee góor ngóoraa tax. Sunugal 24 point net l'information rafetlu suñu ànd ak ci suñu gal 24 mbokk yi asalaamaaleykum dal leen jàmm ci biir jataayu xibaar ne suuti ñu faram fàccee. Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur, c'est ici dañu koy door rek génnug àdduna ak maître Oumar jàlloo di avoca ci promotion 2003 dal di nañuy fësal génnug àdduna am ni ki tey ca salle d'audience ginnaaw bu mu doon abal ab audience ci kanam juge des référés ci la dal di piqué crise daanu laata ñu koy yóbbu hôpital mu dal di faatu ba waral ñi nga xam ne ñoo teewe woon boobu lee audience ñëpp tey dal di nañu ànd ak tiitaange ak ndax seen naataango bi di maître Oumar jàlloo ba muy ñëw ca salle d'audience ba dara jotu ko ba waral ñu koy jàllee képp koo xam ne yaa ngi ci biir réew mi raw rawatina yi mbokkam ñu àddu wax ci leneen mu dem ca Ndindi nekk village bu nekk ci commune bu Dojo ci département bu Linguère faatu gu doy waar la ñu fa dal di nemmeeku mu di Mamor yi di xale bu góor bu amoon ñaar fukki at ak juróom la ñu dal di wax nag ak faatoom ginnaaw bu mu tabee ci ab ten ñu koy wër ay fan teg ñu ko gët li waral ñu dal di wër ba fekk ne ma nga ca biir ten ba commencé woon yàqu ñu dal di woo police ak sapeur ñu dal di ñëw dal di koy génne jamono ba ñu ko génnee dal dinañu koy yóbbu ngir denc ko ki ko ki joxe boobu ordre di procureur bu Louga ba waral jamono ji ay mbokkam dal dinañu jot ci boobu leen néew ngir denc ko CEDEAO dal dinay ñàkk nit bu ko amaloon njëriñ di nit boo xam ne jóge woon na ci réewam di Guinée ñëw ci réew mi di Sénégal mi ngi bokkoon ci CEDEAO ci atum 2018 ba léegi mi ngi ci liggéey di professeur Léopoldo Amado dal dinañuy fësal génnuk àddinaam ni ki démb ci dimanche ji moom professeur Léopoldo Amadou Bomu mi ngi nekkoon ci commissaire en charge de l' éducation l' agriculture science ak li nga xam ne moom moo di euh, technologie ba waral ñi ngi koy jàllee waa réewam di Guinée Bissau ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay naataangoom yim doon liggéeyandool ci CEDEAO rawatina famille bi mu amoon ci réew mi di Sénégal. ginnaaw daje bi nga xam ne njiitum réewum Sénégal daje na ko ak humoriste bi di Oumar Sy ak ki nga xam ne moom moo moom moo di Omar ni ki démb ci dimanche ji yendu nañ yendu boo xam ne moom Youssou Ndour dal dinay fësal mbégte ma mu ca am dal yëkkati ay kàddu jëmale ko ci Omar di doomu Sénégal bi ne fierté la ci réewum Sénégal ak bi nga xam ne mi ngi koy euh, joué muy daw ca Netflix te ñëpp ràññee ko ci bu ñu ba ki nga xam ne moo di Omar di doomu Sénégal di liggéey liggéey bu rafet boobu yoon la ñu xëcc ko taf ko ci seen kaw encouragé ko ñu dem ca Bignona xeex bu méttee métti moo amoon ci diggante élèves yi ak ñi nga xam ne ñoo di ji enseignant yi mi ngi amoon ci collège d'enseignants secondaire Arfan ba nekk ca Bignona ginnaaw bu élèves yi doon xeex seen ak ak seen yelleef di grève ngir génne eh, seen yeneeni moroomu élèves ci salle de classe yi eh, loolu nag moo jur opposition ba doxoon diggante élèves yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di enseignants yi ba waral élèves yi jël ay xeer sànni ko ci kaw enseignants yi ba ñett ci enseignants yi jot nañ cee jëlee ay gaañu gaañu waaye kenn ka moom jamono ji dafa nekk ci diggante dund ak dee ko yóbbu ca camp sapeur ba nekkee ci diwaanu Bignona ngir def ca la ca war waaye ñi nga xamante ni ñoom ñoo di élèves yi ba léegi fa ñu ngànk euh, bàyyeeguñu ko ñu wax ci coowal Rangou ginnaaw génn gi nga xam ne génn na ko ngir nettali euh, condition ya mu doon dund ca kaso ga itam ñamu fa fekk condition ya muy dund Rangou mujjee ñoo gis euh, pour une première fois rongañam daal di dal dënam mu mel ni la muy expliqué lu sérieux la ci moom nee na ñu jàppale mandat de dépôt te ba tey kenn waxagul ci seen i dossier conditions yi ñu fay dund métti na lool jot nañu daal di fas yéenee xool ndaka la ñuy def ngir génne jigéen ñooñu ci kaso gi war a ñu juger leen ngir xam fan la waaj nag di mujjee ki gëtam directeur général bu entrepôt malien bi ci réewum Sénégal di Fouseynou Soumanou daal dinay yëkkati ay kàddu jëmale ko ci diggante réewum Sénégal ak Mali nee na lu tolloog 70 pour cent hydrocarbures produits solides ak liquides yi jugee ci yuy dugg ci réewum Mali ci réewum Sénégal la ñu koy dal di importer ndaxte dañoo gis ne réewum Sénégal mi ngi def liggéey bu am solo jëmale ko ci réewum Mali loolu nag mi ngi ko dal di yëgatee ci inauguration bi nga xam ne moom la ñu doon amal samedi bi eh, ci parking gros porteur ba nga xam ne moom lañu doon amal ci port sec eh, bu Sandiara. ñu àdd wax ci leneen diggante Youssou Ndour ak Souleymane Faye daal dinañuy fësal dëggalaat seenug eh, li nga xam ne moom moo di seenu liggéey ci wàllu musique moom Souleymane Faye daal dinay toog ci TFM moo di retraite bi muy waaj a def ci wàllum musique ndax am na lu tollook juróom ñaar fukki at ba waral Youssou Ndour daal di def ab vidéo ngir souhaiter ko li nga xam ne moom moo di joyeux anniversaire ñaanal ki nga xam ne moo di Souleymane Faye yàlla bàyyi ko fi nee na ko fans la comme ñëpp comme ni la yeneen sénégalais yi bëggee te itam fierté nga ci réew mu mel ni Sénégal bisub le 25 janvier doon na bis boo xam ne Sénégal du ko fàtte ndax ci la ñàkk ki nga xam ne moom moo di Mamadou Dia ak liggéey bu rafet mu liggéey ci réewum Sénégal bokkee ci ñi doon xeex ngir Sénégal am seen indépendance bi muy génn àdduna mi ngi amoon juróom ñeent fukki at ak juróom ñeent mi ngi génn àdduna ci le 25 janvier 2009 euh, moom Mamadou Dia moomu bisub tayam bi Sénégal daal dinañu ci ñaan dal yàlla moom Mamadou Dia moomu mu xaaree ko ci àjjana yi si ñu wax ci mbiri 10 000 problème ginnaaw bu mu génnee kaso euh, ba ñu ko fa tëjee ci lu ñeeloon euh, violation couvre-feu bi ba mu ca génnee moom 10 000 problème daal dinay génne single boo xam ne clip na ko ba mu ngi commencé di daw ci réseaux sociaux yi waaye boobu boobule clip da caa yàq lu mel ni keteme ñi nga xam ne ñoom ñoo di rappeur Yaana Marie moom 10 000 problème fa mu tegoon tànkam ba léegi teggiwu ko mbokki xarit yi ñu doon taxeelu ci suñu 24 fi leen yëkkatee bi la jotaayu xibaar di ñaan ngeen woye suñu programme ñaanal leen fanaanum jàmm di leen jox dig daje ëllëg incha allah